Cheikh Ibrahima defar suñu pajug aajo àdduna ak àllaaxira ah ñoo ngi ko baax na ñu ngi koy def di ko siyaare képp koo xam ne kii dégg nga bànn bi mu neex la ngir jëmmi Cheikh Ibrahima yàlla na Cheikh Ibrahima defar suñu pajug aajo àdduna ak àllaaxira ah ñoo ngi ko baax na ñoo ngi koy def di ko siyaare suñu mbokkum taal bi di suñu xarit di suñu wëllëre di suñu sëriñ adduna laa tey bëgg a jeex am gaa ñu baax ñi bëgg a jeex am yu ndaw yi bëgg a jeex mu gaa ñi xam na ka fexe adduna laa tey bëgg a jeex am gaa ñu baax ñi bëgg a jeex am yu ndaw yi bëgg a jeex mu gaa ñi xam na ka fexe ka xam le woon ak tarbiya ak ka xamoon ak tarbiya moom buñ demee ba surga ya ku leen di wax na ka pexe ka woote woon ci àdduna ba ñëpp wuy ci fàdduna nan jéem a dëddu àdduna te jéem a wuy ji mooy pexe Sabamba dem ci wom sosin Cheikh Ibra dem ci tom sosin kon ñi fi des ku ñi dese yéeni morit na ka pexe am si du dem ba doom dikkeen Cheikh Ibra faale doom dikkeen ñoo rawi bokk rawi doom topp mi waaj lin mooy pexe am seen maaram yaa topp ma Sëriñ Morit yaa topp ma nan jéema wàlli seen tama te boppam yi ngeen di fexe ak seen maaram yaa topp ma Sëriñ Morit yaa topp ma nan jéema wàlli seen tama te boppam yi ngeen di fexe Seex Ibra gëm gaa yandi na moo tax mu dëddu àdduna tekki na bamba sotti na wàcc na àjjana texe mu ne xabaaru képp loom may wax ne yàlla moo ko moom moo ko ne bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe defal ko yoon wi ab murit bi al baraw pexe marit ba am ngërëm bari murit te dootu ree di mex mex mu dal di dem tey ba Dakar ngir dégg Bamba di faxaar benn sëriñ tey ba Dakar ci njàng lay xamee pexe mu tudd guddi listixaar ba mu xëyee ba tisbaar sëriñ Maxtaar Tuuri fajar leeram gawoon ko ay pexe Maxtaar Tuuri nga yoori joor yàlla ko jëm Mbàkke Kajoor suñ Bàmba yónni ko ca buur Seex Ibra topp cay pexe Maxtaar Tuuri nga yoori joor yàlla ko jëm Mbàkke Kajoor suñ Bàmba yónni ko ca buur Seex Ibra topp cay fexe ba gis fi Seex Aadama Géy sànni mbiram daldi ca ngoy mu won ko Bàmba mbër mu rëy sëriñ bi naa ko foofa xëy mu won ko de tayal fa moom sëñ Bàmba wax ko la fa moom mu xam ne gis na ko ko moom mu daldi fa mbiram jox mu wax la bis ba ndax mu wóor ñaar fukki fan ci weeru koor bisub dibéer la mbir ma wóor Seex Ibra yaa këri taxe mu soobu far ba jiitu leen ma maa ne kii ëpp na leen leeram gu rëy gi wër na leen fu mu tollu xol bi nux nuxi wax naa ne tuuti kon mu dem fekk sëriñ bi leen biram ba kenn du mos ci baatinam lu dul te bis bani tax wala ne tuuti kon mu dem fekk sëriñ bi lëm baatinam lu dul te bis ba ni texe wax naa ne tuuti kon mu dem fekkir sëriñ bi lum diram bakkan du mos ci baatinam lu dul te bis ba ni texe jaraama say xiif rasaal la fu bi say xi bamba taal serale réew mi yaa kamaal yàlla nga dolli di rëxi ba mu demee Mbàkke Kajoor fekkoon na daara ya di suur mu dal di yalwaani di wër ñu di kore di tex texi yàlla liggéey ba naa ne root gayi ne law ba naan kuréet ba luy ganaar ne kurkuréet moo ko xewal daawul dox moo fa xewal lu yoo di raam moo nu tere wuyu ne naam te kon nanuy jàng fa maam moom muy muriitu di fexe fekkoon na daara yee di riir moo dindi àllarba ak dibéer lu Bamba wax mu dal di buur lu masa am dal di joxe moo fa xewal fali sadar moo fa xewal sa kaw tawar moo fa xewal sa xoo si kar daru fa bay di ruxruxee ba mu demee Mbàkke Bawal dama na waa kër gi bawal may sax bu doy rooti diwal booleeg liggéey di ko joxe lu Bamba wax mu dal di naaw fóoreem juri jasant saaw naa ko dangay deltu gannaaw jàngil moori tuddum fexe mbooleem moori dii di ko soow mu mel ne dof bu ma tëyeew ba mujj far ñépp ne siiw melow ba far di ko wax mujj tu far amul moroom far gën ni bokk gën ni doom jaaraama jaaraama xadim wàcci nga wàccaale texe jaaraama jaaraama xadim wàcci nga wàccaale texe jaaraama jaaraama xadim wàcci nga wàccaale texe na musul laaj yi yoon digal naka nga jóg te na dugal waaw sa mor duñ ko mbugal dormi yi yaa tax ñi texe yaa jëkk a jébbale sa xol fekkoon nga gaañu xorxoral ñi lay taqal di lay setal yaa xal la ngir mi nuy doxe yaa xam sëriñ bi yaa xereñ bàyyi leeroon teeku sëriñ ma jóg bi yaa bari njariñ maa ni wi yàgg nga nax am ngay ngërëm ba am dërëm pour say dërëm jëndee ngërëm loo ma sa am tabal këram ay junni daal nga daa joxe ñoo nga ko addiyee gëleem ñu sa fi nguur du sa fi koom ba tarde yaa joxe sa doom Falilu Fall am na texe fa daw ba daan dem ba Gabon di yóbbu ay sàkku yu rong di war ci gaal yu yori bom doo den ci lu ba mi max moo tax nga mel ne ak saxaar kuy naara dem dana fa jaar ku ñaani paas na seeti gaar bu nit ba naan na ko pexe ndegam danga xeebi sa paas ñëw la tey ange fa karaas seetal ma wax jiite xalaas ndegam danga am looy joxe bàyyi sa xaar doomay wata ku xam le yàlla du fite ku ji àndar góob ca mata jiyal ci taw bi def doxi ca bamba taalo Mustafa ca Ibra taw bay Mustafa diggante Marwa ak Safa ku yaa ji war nga faa doxe ca bamba am lu falliloo ca Ibra am lu falliloo ku gëm na faale falliloo mbaa ak mu jëm day torox sabamba bég lenam basiir saibra bég lenam basiir mi moo ci dem lekk ba suur yëgal ma koy toog gi joxe. sama maam ni Murtala. Sa Ibrahim na Murtala. kenn amatul lu muy xalaat. kenn dootu tiit di yox yoxi. sa Bamba am na mu Abdoulaye. Sa Ibrahim na mu Abdoulaye. Abdou mu nekk matawaay. bul weddi ci bokkaay taxe. Sabal maa am na mu saaliwoo Seydou laa am na mu saaliwoo man di ma roy ci saaliwoo ma ñibbi àjjana tax yal na ñu raw seen tànki baay boo ju toll ne seeni baay ba mujj boole seeni gaay amiin ndax ñëppi tax Seydou laa dem na wàcc naa lu ma sa ajo fa juna ba xëy na ñit di àjjana lal farlu tey andi taxe kon mus la gis sa sawu booy bu dee ku koy mus la ko jooy moo jara woy te jara jooy te àdduna mën a nax moo jara woy te jara jooy te àdduna mën a naxe moo jara woy te jara jooy tey àdduna mën a naxe li ñu mëlil fi ay ndamam ma gaañi dolle xam mbiram na xol yi dig ba dellu gëm léegi ragal yi yox yox jaraama maam say na bu njaay li soxna jaara yor di jaay yaa ko mosal waa jaare jaay taw nga ñi rot na yaa texe diggante njukke téematil dañ daan dajey naani butéel yaa tax ñu jébbulu ca teel fal njega yaare yi pexe mu lekki sa koki sugeer dandal faloo ko soli puur yaa tax ba diine di faleer toxal nga pon mañ daan toxe dami damel ya fi newam yàlla mu mbir ma ñu newoon te ñëpp ñëpp a ngi fi nun kenn amatul lu muy sax ña yóbbu mbaaxaan te xamoor yàlla ba xool ba dootu buur yaata mu sànni yettu buur wut yettu ngëm di wut texe te xam ne mos na yor ci ñun fu jëm géwél ya naa kundum mu xaddi bàkku ci gorom tey muy niroog nun ay pexe yaba ba Abdoulaye xaar taxaw ci buntu di faxaar woyof lu bay lekk Dakar ngir topp Bamba mi joxe te xam ne moo di doomi buur lu ma sa wax ñu dal di buur la dalle mbaakol ba Kajoor moo amee woon seeni pexe yaboo ba soon na Mbenda Faal ak a jiire ki Lalla Faal gëm doomi soxna yi fi taal diine jure ji ni doxe te xam ne seeni baaye moom Feder ma taale gu kënoom commencé gis ay jamonoom xolam ba daawul yox yoxi yaboo ba moom Amadou Njaay nga jox ko daaru baye njaay defar ko boole ko ki gaal yoo xam ne kenn du yox yox yaba ba abdoulaye ñaxiit lan di ndigal farlu ko logaañi gi roma jaxaab tabax na ay kër di joxe te xam ne mos na dox fi moom te di moom ak sangak borom nga denc doomam di sangam lii doy na xar baax day tax Seyib raxas bu teri jaal Seyib raxas di tel ma jaal Seyib rayin dakal kamaal wasal ta xaqan li jalal man saka Ibrahima Faal moo fi tarixi kamaal illam yetub li fi jalal yaraan saabal xasmukur قدمت أحمد القديم بإذن ربك الكريم شيخي كنون من قديم الراء ليس في البصر شيخي رفع الأم المرام fàkk na mbër yu tol ni moom leeral na penku ak soof lu yàqu dootu ñox ñox ndar laa ko doomi jaara may leeral na bopp jaara tey waykat wa sàmba jaara mbay moo tax dënnam bay bëx bëxi la dalee ndar ba ca Dakar jàll gannaaw yoonu saxaar mbër mu fiiri ba naan la kaar Cheikh Ibra ngay laaj yi tax mu jóg fa ak si ndandu faal jàppu fa doom bi nguune faal def ko ne làmp bu ñu taal day ngin ngi néew moo fay tax leeram nga far ba ak si kees ku ñëw mu duy la fa nga fees bi nit ku ñuul ak nit ku xees yëppay bawoo fa ngay mex sëriñ bi ñëw Jurbel mu ñëw daday këram yeetee du daw bu dég bëccëg ñam ye di ñëw ma bamba xëy sàkkum pexe mboolem mooy yëpp a gëlëm kenn xamatul kuy sëriñam ku ne ni ngi jo dal di dem adduna sépp jëf-jëf yi mu dal di ma ci Moustapha ngir xam ne yor na listifa mag ñëpp dem moom mu ne fa mutul toxoo ka yox yoxi ba xëy na fekki ab sangam bu baala togge woon ñamam ma mbaa ko jiitaloo ñoñam diggante bépp gàgguy texe ma ngay janoog tooli dërëm meññet ma raw junniy dërëm gis na lu weesu mi bëtëm am na lu raw lam doon texe bamba xaroo na koy ngërëm rilanti ji la koy këram fooru lay ne nga fag wetam gis naa lu raw yoolub joxe ngërëm la yoon nen bay gërëm aba abakar ma njëkk a gëm la seexi bamba di gërëm Seex Ibra may njëkk a taxe ngërëm la yoon nen bay gërëm aba abakar ma njëkk a gëm la seexi bamba di gërëm Cheikh Ibrahima may njëkk a tax mais daal ma yoon nen bay takkal Ababakar ndaxu dëggal la Cheikh Bamba di takkal Cheikh Ibrahima Fall di suuf tax man de ma yoon nen bay solal Ababakar yor parisol yu saadixiina ya tofal yal na ko Bamba fab joxe Bamba ko jiital di tofal Mala ma dar ko muy dëggal jaaraama Seex Ibra Faal yaa jaara xam bi du pexe yokku la sopp daal di baax yokku la weddi dootu baax waajoo gërëm muy gën di baax kii ku ko bañ doy torox na jéem a toppi di gërëm te jéem a moytu ay tëram te jéem a roy ci ay jikkoom moo am njëriñ bi suuf tax Moussa la way lii wala fal yal na ko Seexi Bamba ful te boole ko gaay yi dëggal yoo xam ne kenn du yox yox Amina Amina neen Amina ndax ñu boole leen ci moo ci way wi balu ngeen sàkkooti am te ak texe Amina Amina neen amiin ndax ñu boole leen ci waxi Musaa ba lu ngeen sàkkoo te am ta ak texe ay fi ma xaal lay nekk lee dénk Rasuul am tàggu toog maa suñ jabal ba mu koy yabal réewi Yaman dénkam ba ak faatu Rasuul desam ga tey laa fi misaal yàggug maas nga ci misaal te booba maas a nga yaman moom moo du saw moom kànka yaa di fët ca bokki bayti ya mooy taarixal saaba ya dénku maas moo di yaman fas nan ci yéene am ngëm te dolli ko ca yikam te am ci yërmandey borom aras ca maas moo di yaman salaatu xurwati ya teew tànn fi saa ba yi yëpp teew nit a gine tëmbër ma teew naa soxla naa ku dem yaman yaa ma saral muhaajira wax liram saaru tura jibril moon xaaru ira ne yàlla ne yabdal yaman moo tax ma xëy tey ji ne leen yaa ma saral muhaajiriin fansaarikum ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman faree Omar moo njëkk a buur dinaa ko yaa xayul basaar anaa ko xaale yaa Omar njottil doyow ki dem yaman mu toog mu baamu woo keneen yaa ma saral muhaajiriin man saarikum ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman Usmaan a jóg ibnu Affaan mi tax mu jot ci alquran fa qaala yaa ibnu Affaan ijlis wala tajji yaman mu toog mu baamu woo keneen yaa masara almuhaajiriin sansaarikum ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman Ababacar ma dib goroom mu jóg taxaw njël ma sëngéem ngir kër sa gaag lam dib goroom may xam ne moom du dem yaman Ababacar moo njëkk a gëm jëmbal doomam dib goroom te jox ko mboolem alalam topp ko di mu tukkoon su kon na mbay moo gën a woom Fasoon na ko korot ci baam. Gëléem la boole ak i jaam. Gaali wurus la la bala. Yaakaar na yaa bari nga ñaay. Yaa ma ko ñee maane la saay. Mu muudu saw def na la waay. Yaa ci limaa ni waaye ma. Ababacar musul di tooñ. waajur ya kenn ci mus la tooñ doom jum juit musul di tooñ yàlla boroom ba leen bindoon yeneen ba doonoon àndandoom am na juróom fukk ci maam yu mus la tooñ yàlla ba dem wuy ci boroom ba leen bindoon yeneen si maa kay ne xubaar Demba nu woote mu tubaar yaay bàyyi xeeg ba yaa ko jot yaa dàq pepe yi mbóori si nu. ma tee mu baa ma woo keneen yaa ma saral muhaajiriin ansaarikum ci man di doon tey soxla naa ku dem Yaman. Aliyu buur ak Silkafaar naamu badar donte lu ñaar maamu yu nay ni kon ma xam yéefar yi tey bañ di yaman yaa ibnu aami yaa rasul man fa ma xaacoo noon ñu tool maay gaynde maay sojit bu tool ndax man nga taa mu ci yaman mu naa ko man yorisu nii وإني في وجعلني أبل سين آسني ما لي سواك لا يمن علي توم وكنن يا مسار المهاجرين من تاركم كمن بدون كيف أخلنا كدن يمن ما زجك ابن جبل mu naa ko yaa ibnu jabal amal ne dem ci yow la ñeel yaa ilimaa mi waaye ma fa anta lakka yaa mahaas wasu lisaanaka maas walaahu rabbaka aas unaahu fi ardi yama ma naa ko dolli ma leneen tawul ma den calis leneen loo xam ne danga ko wax keneen te booba maa nga fa yaman mu naa ko maas yomal isaab ñi gën a metti ay iqaab ci seeni làmmiñ ñuy ko góob ñooy waxe nii wax ko yaman bu lekk maas di ba ko xiif tabul desagit ne ko kiif te fekk say dëkkaale xiif araam na wax ko waa yaman bu lekkatee maas ba suur mu denc bul wetti bul tuur gannaaw dangaa lekk ba suur wuutal ko xiif fa waaye ma góor ju nit di ko leel mu yàlla fab la di leel te nga mi aljana xamal li yóbbuloo ko fa yama te boo mayee ju nit mu naan mu yàlla nandal la ci naan ne kawsara gani dagaan li yóbbuloo ko fa yama ku sangaab julit malaan bul yàlla sang la malaan areeri jannati malaan li yóbbuloo ko fayama ku suturaal awra julit bur yàlla def laab xarit say awra kenn du ko wisit yawmal qiyaam wax ko yama boo wuññulee julit ayib buur yàlla wuñ ñi say ayib jébal la gaaya lay laab tey mbir ma wax ko waaye ma te boo xasee mbokkum julit mbaate nga ŋàññi ab julit dees na la jéng naari kët ceene la lii jaru ko woon nit ak jinneeg malaaka teew lu muur bi mel lépp di teew malaaka fab la ñépp géew di weer sa jëf ya nga jëf yamul nelaw banaan kureet toogalee mu ne xoreet mboolem njaboot ga di la seet te duñ ca man lu fa yama xamoo maak naari nga jëm xamoo laal jana nga jëm guloo ba kekku yow jëyim sa jàll gu ko bul xaram bu lekk maas ñaw lewul bu naan maas naan ko lewul bu tàngoo càngaal lewul li yóbbuloo ko fayama bu yàlla lem li njëkk a laaj dundum bi ndeef la njëkk a laaj te su lewee dootu la laaj sawe nga wax ko waayama bu lewulee dooma newi te àndandoo ya duñu wéy waroon nga gis ku jooy ne wooy balab ci biir rongoñ joon na ngay yërëm lu sa borom te dee yërëm kat sa morom buur yàlla digle na yërëm mindeef yi wax ko waaye ma xam nga maas yoomal qiyaam jàng nu génn jot turaam sa baanu naari mooy këram ndi far ña tooñ wax ko yama day wax ne nit te dina for watooña ak ñi leen di far muy tàbbi naari bul di far way tooñ caat di fa yama maas na ngay lekk alaal te ju alaam jëmul ca laal lu tuuti tuuti bu ca laal kon danga raw fa waaye ma ndegam da ngay jëndee dinaar téeméeri junni ci dinaar ni ndox mu sell nepp dinaar aljuma deel làppa yama ne mat maas bul koy ragal ñëw dooñu loo bul koy ragal ngir deer naam jaay ngëniil muyal te wax ko waa yama bul fàtte maas yow sa borom foo mën a nekk moo la moom bu sàgganee ci say moroom ci kër bu yàlla mbaa muy ci sa kër barab ya ñooy sa seere far yomal qiyaam wax ko yaman fu nekk deel de këy ci kër bu yàlla mbaa ko muy sa kër barab ya ñooy sa seere far yomal qiyaam yag waa yaman bu fekk toon nga di ko bar mu saf dëgg it def ko ne naar te ilimaan bul ko di caar bul fàtte yi sa waaye ma na ngay dëkkaale ki faqiir miskin ya maas bu leen di réer te soo defee nii fekk leer foo mën a jëm sa waaye ma xam nga maas yomal quraan xamaa ko képp ku reyaan tax ci miskin ya ànd leen mbokki jotaay waaye ma mu sàggane dëkkin maas mu topp neen yëkkat maas képp ku dee di rëccu maas te fekk yi na fayama mu naa maas yow taxawal yaa lotul kañaani xol jàpp loxoom naa ko muñal te topp tooy jarak yama jàppal ma dénk bi maas ngir man ragal naa ne maas bu nii gisee di kat maas yomal qiyaam yaa ko ayama ma naa ko yaa rasulullah ñum naa sa dénk bi wallaay may sàkku ndimbal ci ilaa ak dénk bi sa waaye ma yeneen ba jàpp ci loxoom ñaanal ko tum li ci loxoom te naa ko maas waaxul te dem tey dénk naa la waaye ma dénku maas ba fii la yem xateem ba tey laay bëgg jëm faatu rasul gaal ku yëgam te booba maas sa nga yema Keroog ba maas yegge yaman yi gàngu nim nga fa yaman ba sant yàlla fukki yoon ak ñaari yoon sa waa yaman julli ca yoon nen ba bu baax waa leen ba xol yéene firaa yaman ña naan jiwaaya baax sa waa jiwaay moo di yaman dinañ la ngëp di la teral yàkkam njaboot di leen bégal mu jooy ba jooy yu yàgg lool ñu di ko laaj ñëw waaye ma fu man yu kii kayaa maas qaala lahum laysa aas amara sayidi maas abibu inda yama ñu naa ko lan la la digal mu tontu leen lam ko digal ne mi koy ràgg tebul sàgg nay miskin fayama ma sax bi ñoom di leen digal amaat mu leen ma manqué wul muy fukki weer ak yaar xamal lii la taxoowam fayama am jëmmi bis maa di nelaw li saama ak tim ko ne yow yowul maas da ngay nelaw mbir am na yaa ngi fi yema yonent baa ngi sukkuraat yow ngay nelaw ba naan kuréet mboolem saa ba yëpp tiit yow ngay nelaw fii fi yema mu dellu baa mu ne maas yonent ba faatu na maas yëgal ne mat dina maas kenn lawul yaa ngi fi yema mu dellu baamu waat si saa li maas yëgal ne si la saa suuf tim na yonen si la saa maas yi di lox ko waa yaman bu dee la maas génn yaman tabi ja biir alub yaman mboolem bi diw yëpp mu teen ngir ñuy wëndee lu fa yaman mboolem garab kenn yënguwul mboolem ngelaw lenn jógul mboolem asamaaw si niroowul ñu lëg bu baax sa waaye ma mas naa gilee guddee kuróoj di jooy di jooy ba bët ne kooj ñu xëy di ñaan yàlla di laaj naa li ma gént fi yaman dem luñ dëggal la di lu am na del si guddi gii ma jëm bu dee ne seytaane jiim soppil ma mbir mii fi yaman yendoo keroog ba cëg bu tiis mboolem bëccëg ba bépp niis mboolem yaram wa wépp diis ngir mbir mu tiis ma mu gisat te ngoon nga mbir ma del siwaat naa ko maas li ngay xalaat lu am la nan ko mën a waat demal ma di na yàgg ku man ma siite woolu ne keroog yeneen ba faatu na keroog jooye fa maas jooyam keroog musiifu ko jooy fa yaman jooy ba garab ya bokk jooy julli yaman ya bokk jooy malaaka yërmande jooy ngir jooy maas moo yaman ma maam du saw jooy lay la xaa yaa wayli wayli wayli xaa faa faa tin wayli xaa ma jooy le maas ma woon yaman jibeer ba naa yaa sayidi yaa maaliki faasidi yaa wayli wayli xaasidi fii layli xaa i fi yaman mu jooy fa jooy yi yàgg lool naa ko xamal xayra rasul ki doon sangab ku doon rasul faat na tey maa ngi fi yaman mu xëy di julli ji di jooy taxaw di jooy sëgg di jooy sigg di jooy jekk di jooy taaya ba sëlmal fa yaman fa xaala yaa muhammadaa waa balxaasin sayyidaa wa yaa imaarul masjidaa inna lillaahi la waxoon inna ilayhi raaji'uun dootul giseeti la waxoon ginnaaw keroog ba ma ne woon yowmal qiyaam yaa waaye man jibriilu dootu mën a ñëw dinu xabaar ci asamaaw xabaar lu wee luy nar a xew tey dee gënum dund ci man mu fab meteel gam ko joxoon tëralu ko tiim jaati na woon daluy xalam lam ko waxoon di lox di jooy waaye ma naa maa ngi ñaan borom meteel gile ma tiim mu doon suuf bu dee ne gént gi daal lu am la naa génn yama naa maa ngi ñaan borom meteel gilee ma tiim mu doon sool bu dee ne géwént gi daal lu am la naa génn yaman ba mu xëyee nga fëgg lépp fu raw la teg ñu di ko yéeg gisal ko yéeg tàllal loxoom di tàgg toog bokk yaman ma war di bàcc di doxal ñeent fan noppaluwul mu nopp loo dafa yësal gileem nga julli nii la woon bisum ñeneental ba bu wér mu daje faat keroog imaar ma ngay nuyoo keroog imaar mu di ko laaj yoonu yama man naa ko yow noo tudd naar mu naa ko man naa di imaar te sama baay it kat yasar moo di turam mu jëm yaman ilaa maakin nu jabal habibo xayra rasul para ku duniyaate xamal li léey li may yóbbu yaman man wàcc foofa di fa jooy ya wayli wayli wayli wooy malaaka yërmande jooy ngi jooy maas moon yaman mu wàcc foofa di fa jooy yaa wayli wayli wayli wooy malaaka yër ma ne ya jooy ngir jooy maar moon yama mas naa yi maar ibnu yasar madina ñoom na seeni mbir mu naa banaa ñu sii si mbir ak di tawat maas sa yaman mu naa ba tey ma di la laaj keroog ba yonnen ba di waaj ngeen di fa teew ba mu ne saay ñu ngeen defoon maa ngi sa yaman mu naa ba tey ma di la laaj keroog ba yonnen ba di waaj ngeen di fa teew ba mu ne saay ñu ngeen defoon maa ngi sa yaman mu naa Ousseynou ak Assane laa la di laaj nañu defam lekk ka naan teel lañ boot ngir ga di jooy ci maam joor ñu bokk wi naas ak imaar ba ñu demee dëkkub ci biir mu xalay gàtt di jiir maa jëm fi moom moo ne ma tulaale yaa umma tulaa wadi ilaa ilaa ilaa ilaa huwa rasulullah kayfa salaa sax bi yoon mu naa ko Faatimatu man la dégg muy jooy ak Asan agal Waseynu ñanga naa yaa jattanaa la ko waxoon katinganaa yaa jaxanaa ñoom ñoo am ña ngay woote te naa yaa jota naa yaa jota naa ngir ga di jooy si maam joon maa ngi béyee di di nuyoo trahisatu la nuyoo salaamu bayti la nuyoo ma dindi saa la la waxoon jëbeer ba ñoo taxaw fi moom am xaada moo di aw turam naa ci yëngal bunt bi moom ku war a doon la ko wax mu naa ko maati mu jawal bunt bi naa ko fi yëngal tey kenn waru ko fi yëngal tuddul maas moon yama um xaada ubbil ko mu wéy ma jooy faay sa tu jooy yaa woy li woy li woy li woy malaaka yi ma ne ya jooy ngir jooy maas moo ñama danaale yaa ay sa tiyaa umul masaakiina wa yaa umul muhaami nuuna yaa tangum di ndéef yi mum dafa sama xarit ba fi ne woon fatu rasul kanam defoon sama xarit ba fi newoon déggan nit ak jinne ak keneen faatam nga wax manum defam faatu ga sool ganum defam sama xarit ba fi newoon déggan nit ak jinne ak keneen faatam nga wax manum defam mu naa maa talu ba tey demal jëkkal àll yu tey waxtaan ak paa ci Modou tey kon mu solol lanam defam ma waaxu dem kër Aliyu ba mu demee dafa nuyoo balaa mu bayti la nuyoo ma dini saa la la wax jëmeer ba ñëw taxaw fi moom rayaana moo di aw turam naa ki yëngal bunt bi moom ku war a doon la ko waxam mu naa ko maas ibnu jabal mundu bi naa ko fi yëngal tey kenn waru ko fi yëngal tuddul maas moon yaman rayaana ubbil ko mu lay ma jooy fa faatimatu jooy malaaka yërmande jooy ngir jooy maas moon yaman man naa ko Faatimatu yow man lay di ñëw ci yàlla yow solal ma faatoom nga te yow mu làkk tey na mu defam mu naa ko maas boo fekke woon keroog meloon ba mu meloon àdduna soof laak sa bakkar dootu la faale bi le dul metti na bam suur ko mu gel delooti suur ko ba mu xal niw daal di xonqe ni la mel mii mbira tiis yaa ngi fayaman metti na bam suur ko mu gel delooti suur ko ba mu xal niw daal di xonqe ni la mel mii mbira tiis yaa ngi fayaman fu leen saa ba ñëw fi moom mu seer gisul la fii ci ñoom mu naan nu maas ma fu mu dem ñu naa ko maas da nga yaman mu naan nu yil leen ma maas te ngeen tàggul ma it maas te ngeen waxal ma it maas doxali naa ko fa yaman natiina bambankub loxoom delaati tallalub loxoom toog métiid wa ne fi moom adduna soo fan na sinu bu fekkoon bisub keroog adduna soof la yow keroog dut la faale yow keroog képp ku faale di la dut wulaay maasim nu jawal keroog yeneen ba nelawul madina kenn nelawul te booba yaa nga fayama kenn lewul saba bilaal la lee di woo xayra rasul waxtu yu jot na yaa rasul salaatu xayri la waxoon keroog la yoon li man ne leen Ababakar na jiite leen dellu ko baamu ñaari yoon mba jiite leen yaa ngi fayama keroog la yoon nin ba ne leen Ababakar na jiite leen dellu ko baamu ñaari yoon mba jiite leen yaa ngi fa yama Ababakar moo jóg taxaw rongoy yeyul mu naa ko yow sang daa taxaw ku fay taxaw farxaat yaa nga fa yaman saa ba yëpp xaaju far seen mboole ñëpp bokk ser yeneen ba naa ay sa tuba ma yooyu xaaju moo di lan saa ba yëpp xaaju far seen mboole ñëpp bokk ser yeneen ba naa ay sa tuba ma yooyu xaaju moo di lan mu naa ko saa ba yaa ngi jooy léegi fa néewul moo tax ñu jooy dang daa taxaw gisuñ fa tey ku fay taxaw la ko waxoon yeneen ne rabbi xaw nii ataa usi la um hi nii rajow taan yu xaafi nii aasi salaatu yaa mu hii buur yàlla séexal ko mu jóg asaamatun ibnu saydoo sallun ibnu abbaasa jóg alli ñii ñoo ko dawal ba mu demee ñu bokk buur sabaa ko boole ak sikar yeneen ba naa Ababakar njiiteel mbindéef yi yaa fitin yeneen ba jëkki ca kanam Ababakar topp ci moom mbooloo ma topp ca koom Ababakar di seen limaan ba sëlmalee yeneen ne leen Ansaari ak muhaajiriin tey maa ngi nuyoo ak yéen te di leen sant ak a ñaan na gudd fan ngir ànd naa ak yéen ci naqar ñu mbas ma yéen ngeen di macar man bokk dañ ci ay naqar na yàlla dolli seenu fan badar ji yéen laa àndoon ku ne ni yéen laa fa gisoon tàmmoor ak àndax yéen a woon xare boo yéen a fëgën yéen a mënoon fa Xaybara yéen a mënoon waadil xuraa keroog la yée farus mare na yàlla dolli seenu fan yéen a mënoon fa Xaybara yéen a mënoon waadil xuraa keroog la yée farus mare na yàlla dolli seenu fan yéen a mënoon fa Xaybara yéen a mënoon waadil quraa keroog la yii farus mare na yàlla dal di seenu fan gaa ñi nuyu leen ma maas te ngeen tàggul mayit maas te ngeen santal mayit maas te ngeen waxal mayit maas doxali naa ba fa yema na yàlla def ci yéen watal te dol li muñ ci seeni xol di leen jubal te yéenal seeni mbéer maas fa yema Mamadou du sa yoo taxawal utaani feet na ci sa xol yàlla na maas ibnu jabal sëdd ca cër ba mu amoon xarit ba yàlla nañ suñ xarit xurëm ba yàlla nañ nu ca seet bootam ma yàlla nañ nu ca boot na mboote woon maas ba yama salaalehi rabbuna sun buur ba mag ba yóbbu naa sangub sangam ya fàtt naa a gaaya teewam sayama jamaakum nasaarakum ayaadakum yarhaamakum anaalakum aflaamakum allahu rabbiyal muyin amina amina ndeet amina ndax ñu boole leen ci wooti way yi boolu ngeen sakoote am ko fa yaman amina amina ne leen amina ndax ñu boole leen
Bismillah, ya Mawlaaya, bilaa manaaya, walante aaye. Bismillah, ya Mawlaaya, bilaa manaaya, walante aaye. Amdan li rabbi, khayra murabbi, qadra ma qalbi, binafsi daa'im. لو سكوري بلا كفوري وهو ناصري من فدائي لو سكوري بلا كفوري وهو ناصر من فدائي لا وقت ربي بنعت ربي لو خطابي ما تدعي لا كره لا لك سناي لا كالتجاي ما تدعي